ñëw di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñoo ngi seetaan bi réew ak bitim réew je pense que tey jii nii le président Macky Sall ku nekk si ñun la interpellé ku nekk si ñun la attaqué parce que attaquer notre démocratie attaquer les libertés mooy ngay fexe guddi ak bëccëg nooy gaagagalee nooy faagagalee ay candidats def na ko ak le président Khalifa Ababacar Sall le président Karim Meïssa Wade ñuy xeex pareegul ku nekk gis na démb li mu dugal contre le président Ousmane Sonko di wax à tous les leaders de l'opposition à tous les leaders d'opinion à tous les Sénégalais toutes les Sénégalaises que ni lii ku ko seetaan yaa ngi seetaan sunu démocratie bi nga xam ni yàlla def na boobu ba tey nit ñi ñoo ngi ciy xeex yaa ngi seetaan président Macky bëgg ko transformer jël sunu réew jëlee ko république pour installer fi une monarchie installer fi une dictature parce que ku yaakaar ni lii muy def nii yow lay xàllil yaa ngi juum xàllilul kenn ku dul boppam parce que bi mu toogee boobu ba tey xam na ni gis nañu ni boppam rek moo ko ñor te kenn umpalewul ni lii muy def nii lépp lenn tax ko ci jóg lu dul troisième moo tax il faut qu'on reste aujourd'hui plus que james soudé mais qu'on reste aujourd'hui plus que jamais solidaire parce que la solidarité c'est dans les épreuves nga koy wane ak ku mu mën a dal et c'est ça Yewwi Askan Wi moo tax ñuy demander toutes les populations à rester déterminées et mobilisées et nous sommes extrêmement atteints outrés par ce qui se passe aujourd'hui di xamal au président Ousmane di xamal à tous ses responsables et à tous ses sympathisants que ce combat Yewwi Askan Wi va le mener et bu ko président Macky Sall ñu wax ko xam nañ ni amul lu nu mas a waxta tax wuñ ci taxawaay bi ci war concertation yi yàgg na léegi yàgg ngeen fi ndaxte loolu la ku nekk doon exprimer ku nekk di am une inquiétude extrêmement grave ci situation bi parce que seetaan bi dafa doy seetaan bi dafa yàgg douze ans bientôt président Macky Sall tous les jours bëgg nu wal ni moom ce n'est que sa seule volonté qui compte ni ce qui est inscrit dans la constitution ni les droits yi nga xam ni ses opposants ou les autres citoyens am nañ ko ñu dem première instance on donne deux mois ñëw deuxième instance on donne six mois et ku nekk xam ne six mois bi conséquence bi muy am ku nekk yàgg di génn ci ñoom naan kii daanu jóg ci moom loolu am démb président Macky Sall ñu war ko wan ni fulla bu mu am ñu it am nañu fulla bu ko raw fulla bu ko weesu et loolu moom la Yewwi Askan Wi di wane donc di leen xamal ni ku nekk ci ñun ak foo mën a ne biir réew ak bitim réew na nga jël komba bi def ko sa combat moo tax Yewwi Askan Wi décidé le 19 me une marche nationale et internationale pour la marche nationale ici place bi ak fan lay doon daan leen ko wax bu jege mais di lancer un appel képp kuy militant kuy sympathisant nga nekk biir réew ak bitim réew fédération yi nekk fépp ci diaspora bi ñoom ñëpp le 19 mai ñu organiser seen marche nationale et internationale contre cette campagne de liquidation ci ci le président Ousmane Sonko et li may daanale ci loolu mooy dix mois moo des ci présidentielle bi matatu ko sax neuf mois moo des ci présidentielle bi yéen ñëpp nangu ngeen di la président Macky Sall non seulement ci douze ans yi mu fi def doxalul yéen ñëpp nangu ngeen ni dafa war a dem moom ci boppam def na ay sondage yu bari xam na ni day dem moom ci boppam lenn rek la bëgg mooy toogaat pour cinq ans encore continuer di souffrir loolu les populations sénégalaises et pour la képp ku mu xam ni wala mu foog ni leader bu ko mën a gêner nga mu xool nu mu la fagagale aujourd'hui ci Ousmane la nekk ñun ñëpp nañu xam ne après ci ñun lay yegsi mën mi sax il m'a donné six mois avec sursis peut-être que loolu rendre ma inéligible mais bu ko xamoon xëy na def na leneen lu may rendre inéligible pour dire que amul kenn ku mu fi épargne donc képp ki nga xam ni tey defoo sa combat laa yaa ngi foog ni tey jii peut-être tu es sauvé et que dina la arranger tu dans une erreur parce qu'il ne le fekk pour lui et pour personne d'autre moo tax na ñëpp mobiliser wu pour que 2024 changement bi nu mos a bëgg loolu mën a am et sache que le président Khalifa, le président Karim Maïsawad, le président Ousmane, c'est des porteurs d'espoir, c'est des porteurs de projets. Et un porteur d'espoir et un porteur de projet, tu le laisses participer. Parce que c'est ça qui contribue à la respiration démocratique. Une respiration démocratique équilibrée. Moi, l'inspiration, le pouvoir s'en occupe, l'expiration qu'il laisse là à l'opposition. Sinon, vous asphyxier la démocratie. Et aujourd'hui, il veut asphyxier cette démocratie. Donc, d'y lancer cet appel solennel pour le 19, une grande mobilisation, et d'y lancer cet appel à tous les Sénégalais de se mobiliser et de faire face au président Macky contre forfaiture yi nga xam ni moom la nekk def et contre cette liquidation programmée ci le président Ousmane Sonko loolu laa amoon li may wax di gërëm di leen sant.